maanaam xëtu ñaar fukkeel bi ak juróom-ñaar yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci jàngalem yi am solo yi te ci war a bàyyi xel ñun jullit ñi moo di nee na aksiru min asalaati alay yowm fi yowm jumaati wa laylati jumaa nee na bëri leen li ngeen di julli ci man ci bésu ak bésu aljuma ak guddi aljuma deneen bëri li ngeen di julli ci man di wax allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim wala allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbi wa sallam wala allahuma salli ala muhammadin wa ala muhammadin wala salaat yi bëri nañu lool boo ci am rek te nga am ci ndigal comme ni koy waa Sénégal di waxee boo ci am ndigal rek jàpp ci bu dëgër te di koy def baril ko lool nag nee na bëri na li ngeen di julli ci man bés aljuma ak guddi aljuma muy alxamis nee fa man fa al zalika kuntu lahu shahidan wa shafian xiyaamati képp kuy julli ci man bés aljuma ak guddi aljuma ëllëg yowma xiyaamati man maa koy seede maa nekk seede ni daaw na julli ci man te wa shafian yow ma qiyaamati dinaa ko ràmm ëllëg yow ma qiyaam kon loolu neex na lool nañ ci sax yal ci yàlla jàppale rawahu bayhaqi an anas beneen bi yonente bi alayhi salatu salaam nee na aksiru min salaati alayya nee na bëri leen di ngeen di julli ci man yéen sama ba xeet ndax fa inna salaatukum alayya maxfurun li zunubikum julli bi ngeen di julli ci man allahuma salli bu bare fa tabaarakalla day tax ñu leen di jéggal seen i bàkkaar wa adlibu lil xaajate wal wasila nee na na ci man seeni Euh, seeni seeni seeni daraja bu ngeen bëggee daraja ak seeni aajo yu faju dee leen ko sàkkoo ci man maanaam ñu yàlla ñu ngi lay ñaan nangam bi ci barke yonent bi wala ci daraja yonent bi wal wasilati ngeen def ma it ma nekk jokkuwaay seen diggante ak seen borom nee na fa inna wasilati inda bi shafaatun lakum nee na jokkale bi ngeen di jokkale sama diggante yéen sama boroom loolu shafaatun lakum day day nekk seen ramm day tax yàlla nangu leen kon nañuy def wasila ci yonent bi lu baree bari di ñaan yàlla di doxalee yonent bi digg suñu diggante ak yàlla su ko defee incha allah yàlla day faj aajo boobu kon loolu tamit yonent bi comme moo ko wax nañ ko def te baril ko lool yàlla nañ ci yàlla jàppale rawahu ibnu akasir an husayn bun ali beneen bi yonent bi alayhi salaatu salaam si jàngaleem nee na aksiru min tilawati al quran fii buyutikum dee leen di bëri li ngeen di jàng alquran ci seen biir kër yi te leen bëri li ngeen di jàng alxuraan ci seen kër yi nee na fa innal bayta allazi laa yuqra'u fihi alquran nee na kër goo kër goo gis duñ ci jàng alquran lu bari bëri yaqillu xayruhu mbaax ma mbaax mi nekk ci biir kër gi dafay néew lool maanaam kër gi dafay néew jàmm du bari jàmm wa yaksaru sharruhu ay kër gi musiba kër gi day bari <laughs> day bëri lool wa yadiqu ala ahli te kër ga day xat ci waa kër ga lool foo leen fekk ci coono rek jafe-jafe moo tax mu ne bareen li ngeen di jàng alxuraan seen kër yi kër gun jul jàngee alxuraan jàmm ji dafay néew ay ba day bari kër ga day xat yal nañ ci yàlla musal ñu jàng alxuraan waaye wala ñu jàngalu ko ci kër yi moo gën di waa moo gën rawaahu daaru xut nii an anas soo ko mënul jàng ja wool ñi nit yi jàngal ko mu ngoog beneen bi yonent bi alayhi salaatu salaam nee na akrimul ulama yéen sama xeet teral leen borom xam yi nga la teral leen boroom xam-xam yi waay ndax fa innahum war anbiya yi nee na ñoom ñoo remplacer yonent yi ñoom ñooy seen kuut ñu kuut laay de ñoom ñoo ñoom ñooy doxal diine bi fa man akramuhum ku leen teral day faqad akrama allah war rasulu teral na yàlla ak yonent bi waaw waaye bu leen ko def rek liggaay yi di wax ni ah eh, boroom xam-xam yi jaruñoo teral ndax nangam nangam nangam déet wax yonent bi ngay topp ñoom bu ñu nekkee ci leneen it bàyyi leen ak leneen la te leneen la sax yow ñoom ñoo la gën a nekk ci en sécurité ndax bi yàlla ne yonent bi yow laa jox téere alxuraan bi soo fi jógee nag euh, danaa ko donnaloo samay jaam yi nga xam ne maa leen tànn suma awras nal kitaaba lazi stafaynaa min ibaadinaa fa minhum zaalimun nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum saabiqun bil xayraati nee na yow yonent boo fi jógee téere alxuraan bi dama koy donnaloo sama jaam yi ma tànn waaw ku bokk si ñi tànn kay santal yàlla ne yàlla ne xam naa ne si ñoom am na ñuy tooñ seen bopp zaalimu nafsi am na si ñoom muxtasit am na si ñoom ñu diggu doomu duñu tooñ seen bopp waaye bari lu ñu lu ñu def lu baax waaye am na ñoo xam ne lu baax rek la ñuy def lu bon mosuñu ko xalaat ci seen xol waaye ñoom ñëpp ñoom ñett ñëpp aljana lañ jëm ndax bi izni rabbihim ci seen ndigalu borom la ñu nekk kon teral leen borom xam-xam yi yàlla teral leen waaw ku teral borom xam daal yàlla ak yonent bi nga teral loolu wax yonent bi du suñuy wax rawahu xaatib an jaabir beneen bi yonent bi alayhi salaam nee na akrimu naas atqaakum ku gën a tedd tedd ci nit ñi ci yàlla mooy ku gën a ragal yàlla ki gën a ragal yàlla daal moo gën a tedd ci nit ñi ci yàlla waaye ñoom dañuy nit ñi dañuy seet keneen ku mu ku leen neex rek ñu ne moo gën a tedd te fekk ne ki gën ragal yàlla moo gën a tedd waaw ki gën a ragal yàlla moo gën a tedd ci yàlla ci nit ñi beneen bi yonent bi nee rawaahu buxaari wa muslim yonent bi alayhi salaam nee na al azmu anu shawira za ma summa tudihu nee na dogu daal mu ngi ci da ngay diisoog boroom xel mu rafet soo paree nga topp lim la digal ma ne nee na dogu mu ngi nekk ci nga diisoog boroom xel mu rafet nga ne ma damaa bëgg nga euh, lii daal dama ko bëgg a def mu wax la ay consigne ba pare soo paree toppal lim la wax gannaaw yaa diisoog moom boo paree nanga topp li mu wax jàmm rek nga ciy am waaye diisoog moom pare dem def leneen loolu ko soxlawul woon rawahu abu daawud beneen bi yonent bi alayhi salaam nee na al islaamu nazif nee na lislaam dafa set dafa laab fata nazafu yéen tamit laab leen su ngeen bëggee ànd ak lislaam koy nee na fa innahu laa yadxulul jannata illa nazif nee na yonent mi kenn du dugg al dul ku set kon nag nañu set te góor góorgóorlu ci lool nag rawahu daylami moo solo hadis boobu benn bi yonent bi nee na al akbaru min al ixwati bi manzilatil abi nee na ki gën a mag ci mbokk gi maanaam bu dee papa defee am ay doom misaal fukki doom ñaar fukki doom ñett doom ki ci gën a mag moom bu bàyyi demee bu bàyyi génne àdduna kooku mooy bi mandirati abi mooy taxaw taxawaayu bàyyi kon nañ ko fonk nañ ko topp nañ ko respecté waaye bàyyi jóge fi rek sa taaw bàyyi nga tànne ko àll ba euh, bu la rëbbee musiba dal la de waaw gannaaw moo taxaw taxawaay bàyyi mooy sa bàyyi kon nag loolu yonante beekoo nee na akbaru min ix ki gën a mag ci mbokk gi bi manzilati abi mooy taxaw taxawaay baay waaw kon nag nañ fonk taaw yi bu baax a baax bañ leen dina gënaawal looy def lu nga def ko pare doo ko yëgal sax ci mbedd ma la koy yëgee loolu baaxul musiba la rawahu bayhaqi moo solo xaalis boobu benn mi yonent bi alayhi salaam nee na al amaanu bu rizq nee na kóolute dafay xëccal nit ki wërsëg nee buñ la wooloo rek loolu day tax nga am wërsëg nee na wal xiyaanu tajlibul faqra nee na dem di war nit ñi dafay tax nga ñàkk ndax baaxul dangaa dugg ci gàmbu baaxul moo tax rawahu Daylami moo solo hadis boobu beneen bi yonent bi alayhi salaam nee na umirtu an qaatila naas xataa yashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah nee na yàlla nee na digal yonent bi nee na yàlla nee na digal na ma naa xeex ak nit ñi ba ñu seede ne yàlla rek ay yàlla moom rek la ñu war a jaamu wa anna muhammad rasulullah yonent bi yonent yàlla la su ko paree wa yuqimu salaat nañu taxawal julli di koy julli ci waxtu ya wa yuutu zakaat ñu joxe asaga fa isa faalu zalika asawu min ni su ñu defee li ma wax ñu seede ne yàlla rek yàlla yonente bi mooy mooy ndawam ñu taxawal julli joxe asaga nee na bu ko defee rek ah, wattu nañu garde nañu seen i deret maanaam sàmm nañ seen bopp ba duñ leen rey wa am ak seeneen alal illaa bi xaqal islaam lu dul ci xaqal islaam rek wa xisaabuhum alallaahi waaye nag seen réglé seen mbir nag ëllëg yowmal xiyaam yàllaa ko amee moo xam nan lay defante ñoom ndax def leen di jéggal wala def leen di def leneen kooku moom mbiru yàlla la waaye li ma sant yonent bi daal nee na lim li ma yàlla sant loolu laa leen wax kon nag def leen ko rawahu buxaari wa muslim an abi hurayrata radiallahu taala anhu allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim